yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak ñett juddub Yeesu Kirist sët bi yàlla dige maanaam Isaa nanu baamtu nettali yi weesu benn ndax yàlla def na li mu dige ne dina yónni ab yonent mu jiitu set bi mu dige waaw yàlla yónni na yaxya mu yëgle ñëw set bi mu dige ñaar lan la yonent yi wax ci mbirum juddub set bi yàlla dige yonent yi wax nañu ne ab jànq moo koy jur dina juddu ci dëkku Betlehem dina bokk ci askanu Daawuda mbind mu sell mi nee na ci Luk saar benn aaya ñaar fukk ak juróom benn ak aaya ñaar fukk ak juróom ñaar yàlla yónni malaakaam jibril ca dëkku nasaret ca diiwaanu galile mu yebal ko ca jànq ba may waa ju bokk ci askanu daawuda te ñu koy wax yusufa waaye àndaguñu janq baa ngi tudd maryaama luk saar benn aaya fanweer ba aaya fanweer juróom malaaka ma ne ko bul ragal dara maryaama ndaxte yàlla tànn na la ci yoom di nga ëmb jur doom ji góor nanga ko tuddee yéesu ku màgg lay nekk te dinañ ko wooyee doomu aji kawe ji borom bi yàlla dina ko jébbal nguuru daawuda maamam noonu dina yilif askanu yanqooba ba faw te nguuram du am ab maryaama laaj malaakama ma ne ko naka la loolu mën a ame man de jànq laa ba tey malaaka ko ne xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañ ko wooyee ku sell ki doomu yàlla ji bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi juddub yeesu kirist sët bi yàlla dige maanaam isaa nettali bi mu ngi aju ci mbirum juddub yéesu kirist yeesu mooy isaa ci alxuraan amoon na ab jànq bu tudd Mariama muy ngorowoo ak genn góor gu ñuy wax Yusufa benn bés malaakam yàlla Jibril feeñu Mariama mu ne ko dina am doom ju góor te na ko tuddee yéesu noonu Mariama laaj Jibril naka la loolu di amee ndaxte xamaguma góor Jibril tontu ko ne xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañ ko wooye ku ki doomu yàlla ji gannaaw loolu yusufa xam ne maryaama dafa ëmb mu am xel ñaar yaakaar ne maryaama dafa ànd ak geneen góor waaye am malaaka feeñu yusufa ci ab gént malaaka mi ne yusufa xale bi maryaama ëmb jógewul ci góor waaye kéemaanu yàlla la gannaaw loolu yusufa jël maryaama jabar waaye te dul ak moom ba xale bi juddu buur ba joxe ndigal ne na ku nekk bindu ji ci sa dëkku maam noonu yusufa ak maryaama jóge nasaret ci galile ñu dem betleyem ci dëkku daawuda ndaxte yusufa sëtu daawuda la loolu matal na li yonent yi wax ne musalkat bi betleyem lay juddoo bi maryaama waree mucc dalukaay yépp feesoon ndax nit ñu bare ñëwoon ngir bindu si yuusuf ak maryaama dal fa jur ga nekkoon foofu la maryaama muccee doom ju góor mu lëmas ko tëral ko fi jur yi lekke ci wetu betleyem amoon na ay sàmm yu doon wattu seeni jur guddi googu menn malaka yàlla feeñu leen noonu ak leer wër ñu ragal malaaka mi ne leen bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xebaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñëpp tey jii te dëkku daawuda ab musalkat judul na leen fa te mooy almasi bi di borom bi ci firnde ji ngeen koy xàmmee di ngeen gis liir bu ñu laxas ci ay laytaay tëral ko ci lekk lekkukaayu jur te saasa yeneen malaaka yu bare feeñu sàmm yi ñuy woy tey màggal yàlla noonu sàmm yi dem betleyem ñu fekk ñu tëral xale bi ci lekkukaayu jur ga gannaaw bi sàmm ya gisee yeesu ñu dem nettali ñu bare lépp la ñu teewe bi yeesu amee juróom-ñetti fan ñu xalafal ko ni mu nekk aada ci waa israyil ñu tuddee ko yéesu ni ko malaaka mi waxe yéesu mu ngi tekki musalkat ñeent fukki fan jàll yuusufa ak maryaama yóbbu yeesu yerusalem ngir seddu ko borom bi loolu ca këru yàlla ga lañu ko daan defee yoon wi tëraloon na ne bépp taw bu góor borom bi lañ ko war a sédd amoon na fa genn góor gu jub gu tudd simeyon simeyon feesoon ak xel mu sell mi bi mu gisee yéesu mu fab ko màggal yàlla nan borom bi na nga yiwi sa jaam mu noppalu ci jàmm ni nga ko waxe ndaxte sama bët tegu ci muc gi nga lal xeet yépp seede ko muy leer giy leeral xeeti yi di ndamu Israël say gaay ci kër yàlla ga amoon na fa itam ab yonent yàlla bu jigéen bu ñuy wax aana te mag la woon moom itam màggal na yàlla ngir sët bi yàlla dige ganaaw loolu ay boroom xam-xam jóge penku ñu laaj ana xale bi juddu ngir doon buuru Israyil gis nañu biddiiwam moo tax ñu ñëw ngir màggal ko bi ko buur bi Hérode dëggee mu laaj sëriñ yi ci mbir mi sëriñ yi ne ko ne yonent yi wax nañu ne almasi bi dina juddu ci Betlehem ci Yude te dina jiite xeetam buur bi daldi mer lool mu ne boroom xam-xam yi ñu dem seeti xale bi te dellu si ci moom wax ko fu mu nekk boroom xam-xam yi topp biddew bi ba àgg ca yéesu ñu màggal yéesu jox ko ay sarica yàlla artu leen ci gént ne bu ñu dellu ci buur bi erod buur bi daldi mer lool mu santaane ñu rey bépp xale bu góor bu toll ci ñaari at wala lu ko féete suuf yàlla yónni am malaaka ngir mu yëgal yusufa ne buur bi dafa bëgg a rey yéesu malaaka wax yusufa mu daw làqu ji misra noonu yusufa yóbbu njabootam ca misra yonent yàlla yeremi wax na ci mbir mi lu yàgg bi mu naan baat jib na ci rama ay jooy ak yuux gu rëy rasel moo jooy ay doomam te bëggul kenn defal ko ndaxte saay nañu fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn ndax maryaama ab jànq la woon ni ko yonent yàlla esaayi waxe waaw ñaar naka la jibril waxe maryaama ne dina ëmb jibril dafa ne ko xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañ ko wooyee ku sell ki doomu yàlla ji ñett lan la malaaka mi wax yusufa bi mu ko feeñoo ci gént wax na ko bu mu ragal jël maryaama jabar nee na ko ëmb Mariama kéemaanu xel mu sell mi la. ñeent lu tax Yuusufa ak Mariama waroon a dem Betleyem. dañu waroon a bindu ji ci seen dëkku maam Yuusufa ci askanu Daawuda la bokk te Betleyem moo doon dëkku Daawuda juróom lan la yàlla digoon daawuda lu yàgg yàlla nee na ko kenn ci ay sëtam dina nguuru ba faaw juróom benn ndax yéesu betleyem la juddoo ni ko yonent yàlla mise waxe waaw juróom-ñaar lan la malaaka yi yëgal sàmm yi tey ji musalkat juddu na ci dëkku daawuda mooy almasi bi di borom bi juróom-ñett fan la sàmm yi fekk yéesu bi mu juddoo ñu ngi ko fekk ñu tëral ko ci lekkaayu jur ga ca Betleyem juróom-ñeent lan la turu yéesu tekki mu ngi tekki musalkat fukk ci kër yàlla ga naka la simeyon ak aana xamee ne yéesu mooy ki yàlla dige yàlla moo leen ko xamal fukk ak benn lan la boroom xam-xam ya def bi ñu gisee yéesu dañu ko màggal te jox ko ay sërica fukk ak ñaar lu tax boroom xam-xam yi teggi bi ñuy ñibbi am malaaka feeñu na leen ci gént artu ngir ñu teggi buur erod fukk ak ñett lu daw dem misara am malaaka feeñu na ko ci gént wax ko ne erod dafa bëgg a rey yeesu yan melukaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla lu mu digee def ko ab jànq di maryaama jur na set bi yàlla digee ni ko yonent yi waxe yeesu mu ngi juddoo betlehem ni ko yonent yi waxe dem na misra ni ko yonent yi waxe yàlla mooy borom doole set bi yàlla digee juddoo na ci ab jànq yàlla xam na lépp yàlla xam na li buur bi namoon te yëgal na ko yusufa beneen yoon dinañu waxtaan ci bi yaxya soobee yéesu ci ndox